wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi almayamin wa man ittabiahum bi hudahum ila yawmi ddin amma baadu mbokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp fi ñu leen daan nuyoo di leen fi ziyaare yu ci dakar midi point net ci seen émission shukran bi ñu leen tàmm defal ci weeru kor wu di ci fàttalante li ci suñu wàllu yàlla ak suñu ponk koor mbokk yu koor nag yàlla ko sant doom aadama yi defal leen ko muy tazkiyatu nufuus mu di leen jural muraqabatallahi di def loo xam ne it mooy luñ naan yusmiru mahabbatallahi subhanahu wa taala koor nag mbokk yàlla ko jagle sant ko jaamam ñi nim ko sante woon ñi ñu fi jiitu woon wax na ko ci alxuraan ne man maa leen ko sant comme ni ma ko sante woon ñi leen fi jiitu woon xëy na nag dañ ko uute ak ñoom ci defin defin wi rek moo wuute ndax ñoom seen koor am na ci ñoom ñoo xam ne bu ñu musaana woor waxtu la ñuy lekk ci bis bi benn waxtu la lekk fasaat koor gi jëmalewaat ko suba ca waxtu woowa ñoo ñaañu gënoon a metti le amoon na ci ñoo xam ne it bu woor duñu wax duñu ñepp seen gémmiñ dañuy liyaar ñun yàlla jagleel ñu ñu ci lekk ay waxtu di ci wax di ci dox suñu soxla moo tax koor googu yàlla jël koor ngar daajul ko boppam ne kenn du ko fayal kenn man maay fayal sama bopp ndax moom dong moo ko doy ci fayal boppam euh, koor nag mbokk yi dañuy wax ne yàlla bi mu bind doomu aadama sànni ci moom am xel dafa teste xel ba noppi doo ko dugal ci doomu aadama parce que mi ngi mel ni machine bi nga defar war ci monter benn logiciel wala benn mémoire su ko antanul li nga bëgg a defar doo ko defar yàlla noonu la def ak doomu aadama composé yi ci war a dem yépp euh, bi mu testee xel daf na ko xel yow la kan mu ne ko man daal jaam laa bu néew doole bu lot bu lompoñ bu amuti pexe man maay xel mu ne ko man la kan mu ne ko yow yaay yàlla di buur bu tedd buur bu sell buur bu am sañ-sañ am man-man di def te doo diisoo mu ne kii daal li ma ko doon doyee defe naa man na ko orienté xel ci kaw bopp moo tax xel a ca féete kaw woo bakkan mu ñëw yàlla teste ko ne ko bakkan yow la kan mu ne ko man daal yëg naa ne man maay man mu ne ko man maay kan mu ne ko yow yaay yow yàlla jàpp ko dumalu ko ay at génne ko ca duma ya delloosi ko laajaat ko mu tontu lu mel ni la mu njëkkoon a tontu ñu yóbbuwaat ko dumawaat ko duma yu gën a metti yañ ko duma woon mu ñëwaat tontuwaat lu mel ni la mu tontu woon yàlla ne yóbbuwaat leen ko duma ko ba muy ñetteelu yoon ba mu ñëwee tontuwaat la mu tontu woon yàlla ne sóobal leen ma ko ci géeju xiif ñu jël bakkan soob ko ci géeju xiif ab diir bi mu génnee néew doole néew kàttan ci la ko yàlla consulté ne ko yow la kan mu ne ko man la ndeke may jaam bu lot bu amu ci pexe bu néew doole bu xamul boppam te amul sañ-sañ yàlla ne kon nag bis ni ki tey bakkan mii nañ koy ooral nañ koy xiifloo euh, nga seetlu ne sax mbokk yi ki lekk ba regg li mu tal ki lekkul ba regg sax talu ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci li mu dénkoon ndawi jullit ñi ci wàllu takk soxna daf ne woon yaa maasara sabab man istataa minkum al baata falyatazawaj fa innahu agaddu lil basari wa axsanu lil farj fa in lam yastati fa alayhi bi sawmi fa inna lahu bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon yéen ndawi lislaam di sama ndawi xeet maa ngi leen di dénk ko mën a denc ci yéen soxna na ko denc ndax nag denc soxna mooy damm sa bët ci xool loo xool denc soxna mooy damm sa awra ci dugal ko fu mu warul dugg waaye it nag su ngeen demee ba mu wóor leen ne mënu leen a denc soxna wala amagu leen lu ngeen ko denc maa ngi leen di ñaan rekk waaye na ngeen saxoo koor ndax kat ku saxoo koor mën ngaa maîtriser sa bakkan kon nag mbokk yi bakkan ñu jàpp ne fasu naaru góor la woo xam ne bu reggee kenn mënu ko tere bajantu Muhammadul yi wax na ko ca wayam wone man lii bi raddi jimaahil xayyi min gawaayatiha kamaa yuraddu jimaahul xayli bil lujumi wax na ne sama bakkan bu màmm bii nga xam ne dafa taataar ngir regg waaye waaye fan laay jëlee ku ma koy delloo parce que yëg naa ne kat rëcc na ci biir dong bi ma ko yeewoon te xam naa ne zooke piir moo ma ko mën a yeewal mooy am kilifa ak nangoo topp yàlla mbokk yi foofu la ñuy yëkkate suñu jataay di leen jox di daje ci beneen jataay ci seen émission shukran bi ñu leen di defal ci dakar midi point net wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi